alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbok taalibe mbok juliti mbok yi wa murit yi waa kër xaadim rasool fii nii ñu ñëw tey fii mooy euh, plateau bu Touba Côte d'Ivoire ñu ñëwoon fi nak tay manam murit ivoirien yi nga xamanteni ni ñom nek Côte d'Ivoire nga xamanteni ni ay ivoirien lañ ñom ñoo fi def bëss bi nga xamanteni moy mooy Serigne Touba manam am doon conférence bu mag bo xamanteni ni ñu ko defee ci grande mosquée bi gëna mag fii nekk Abidjan Plateau ñoom ivoiriens yi ñoo nekk nii nag vraiment di ko def tey fii nii euh, muy lu am euh, maanaam loo xamante ni daal kenn mu mësu ko fee gis fii si Côte d'Ivoire donc muy loo xamante ni daal vraiment euh, wane na ne Serigne Touba daal amul morom Serigne Touba tànk kanam la am amul tànk gannaaw moo taxoon ñu jëlal leen ko tey andil leen ko fii pour wan leen ko ñu nii ivoirien yaa ngi nii toog ànd ak ay sénégalais maanaam tey doon bés boo xamante mooy bés bi nga xamante Modou Moustapha ndeysaan gaa yi jàng ay kuréel euh, doomu Serigne. kafe gi léegi mu jeex barke si mais nañu utiwaat damay woote rek waaw woote rek dañ leen joxaat dañ leen joxaat ñu jóge kafe gi léegi mu jeex quoi fu mu toll nii ñoom ñu génn di naan rek sa waaye faal si dóor yi mooy sa kafe gi moom sa kafe gi luñ ci wax maanaam la ñu des moo bëriwul quoi dama war a bëgg a woote ajame bu ñu defaraat ñu beneen kafe moom après mu dem Wonder.